ci réew mi wala ki nga xam ne. Hmm. dañ ko jox góor ñooñu te mënut a daje jigéen boole ci kooku. ok jaajëf itam taxul nga. non non moom moom li muy bëgg a wax. damay ah, ah, man li may a wax ah, bëgg wax laa Cheikh. waaw nañ ko déglu waaw yow boole ko ci boo ci bëggee wax. Savia dañu nekk dañu dëkk ci réew moo xamante ni si encore une fois Sénégal la tudd. ñu juddu ci ay différentes ethnies yu fi nekk. Uh-huh. te ethnies yi fi nekk yëpp xoolee à quatre vingt wala à quatre vingt dix pour cent dañu nekk ethnie yoo xam te ne dañoo fonctionné tey. duñu ko foowee. d' abord nekk loo xamante ni si culturellement parlant dañu la ci yar ci sa culture dañu la ci yar ci say valeur dañu la ci yar ci sa ngor dañu la ci yar ci sa dignité jigéen bi nga xamante ni si amagul borom kër mu téye boppam ba am dèjà kooku am na ay plus yu nekk ci moom muy un bis bi ko sunu borom di mooy borom kër boroom këram googu di njëkk ci moom comme mu fees dellu comme ni ñu koy waxee bis boobu dina bëri loo xamante ni si sax buy jóge ci moom la jëm ci borom kër de un muy honneur moom ku jigéen ki am personne bu nekk ci moom considération muy moom sagal na boppam kanamu borom këram pour fournir ko ko avant nga agsi ci man pasar pasar sama bopp ak i mbokk ak i mbokkam ak i ndeem ak askanam léegi ñu li nga xamante ni si moom la ñu wax léegi muy diine hmm. yàlla boroom xel yi lay waxal yàlla ay waxam hmm. maanaam dafay joxe signal yow yaa koy àggali hmm. bu la la laa taqara bu laal bul jege kon su mel na laa sàmbaloo sa virginité. bul nuyoo sax. parce que nee na sa bopp. Mhm. suñu borom nee mhm. na. nga sàmm sa bopp te téye sa bopp ba keroog nga yor borom kër. kii mhm. na nga téye sa bopp sàmm sa bopp ba nga am borom kër. kon yàlla suñu borom moo njëkk a nit ñi ñu seen bopp. téye virginité nag sànq am na question bu ñu posé boo xam ma kan moo ko ci posé mu ne. yow boo vierge lan ngay gañe ci sa kanam li ngay gañe ci sa kanam borom kër ak a bari la dignité la respect la personnalité la ndax sa borom kër dina xam man kii nga xamante ne si maa njëkk ci moom fekk naa ko te pasar pasar boppam te yàqul boppam ñu nekk ci dëkk boo xamante ni bu sax quoi ñu doon créer ay laabaan yooyu xam ngeen pour lan la woon dañ créer parce que dañu daan gis kenn koo xamante ni boo nekkee ci këru fa sa borom kër jër la nga fees dell ak ndaw pourquoi fa bi doon demee noonu ñu lay sa ñegenal di wan ni na la neen la sàngam sa yaay toggal la ay affaire ak ñu feet bi am ci kër gi c'est toujours pour montrer yeneen jigéen ñi nekk ci kër gi te amaguñu borom kër jéem leen sàmm seen gor ba mel ni kii ndax boo leen melee ni kii di ngeen am lu dàq la ngeen am lu mel nii loolu moo taxoon motivation la loolu doon pour nga motiver sa bopp pour mën a téye sa bopp je suis parfaitement contre ak li Cheikh Ahmed Cissé ànduma ci tey ànduma ci suba ànduma suba li am li ëpp importance ci jigéen bu musta am jëkkër qu'on se dise la mooy nga dée sa bopp mm-hmm. sànq samay njëlbeen waxoon naa ko ki nga xamante ni si suñu borom natoo mu juddu amu ko waxuma kooku mm-hmm. ki nga xamante ni si maanaam daf koo dal accidentellement ñuy violé ko waxu ko waaw ah, mais kooku nag jëkkëram di conserver euh, kii booga xanaa moo xoon naka la ko jëkkëram di di di joxe cër. ci nga xam ne mentalité góoru Sénégal yi des fois kooku ñëw ne ko man noonu laa juddoo. voilà gis nga benn. nit nit la. na yërëm nit. du fauteuil du émail du ay caméra. nit en chair et en os tànk loxo bakkan baat bët gémmiñ ginnaaw biir mbakku bopp tëstan oom yor xol xel di xalaat nit ki nit. la koy wax. après gis nga am na fu am ki lay bëgg. na la bëgg ci dëgg mhm. na la bañ ci dëgg mhm. foobaa dal na la ci sa àddina mhm. woowal ki lay bëgg nga wax ko dëgg bu ko waroon a metti à cent wax dix la koy metti demee ba tëdd néegam dina xam ne nag kii moo bari jom moo bari ngor moom mi jàkkaarloo ba mu mel nii ko juum bu bu la erreur dalee accepté ko léegi lan moo tax erreur boobu di la dal nga ragal sa jëkkër ba mu jaral nga dem dépenser xaalis. Mm-hmm. ji defaraat sa ndaw kon am nga looy dàq. Mm-hmm. non man waxuma defaraat ndaw. am donc non maa ngi yow damaa tontu loolu ba pare damaa tontu la jàll feneen. Mm-hmm. bu la jaralee nga dem seeti benn benn. gynéco gynécologue gynécologue pour mu opérer la defaraat la. pour sa jëkkër bu ñëwee fekk la am ndaw kon am nga looy daw lu tax nga def loolu. tout à fait. am li ngay lu tax mu def loolu moo la duggal ci tëloon boobu te loolu tôt ou tard dafay feeñ. je vous dis gis nga nga am soxna. nga jël ko mu nekk jànk ak nga am na nga jël ko newul jànk dara jëy sëriñ Tuubaa boo leen doxalee weer nga xam ko waxuma ne ki nga xamante ni si sëy na noppi loolu sa choix la yaay xool jikkoom ak yi neex ci moom la tax moom nga dem dugg ci moom waxuma waxi yooyu mais jigéen ci biir këram mooy mu takk sëram ba góor gi di njëkk ci moo ko def soxna fekk ko mu fees dell man lii laa wax donc dañu nekk ci dëkk boo xamante ni si Sénégal la tudd boobu ba tey it dèjà am na xeet yoo xamante ni boo leen tuddee dañ naan lii bul sori ñoom ñu foyee seen bopp. bari na foo koy tuddee fii ci réew mi. dañu nekk fii ci réew. ba amaguñu njëkk mais ba amaguñu njëkk bari na famille yoo xamante ni si. c'est pas à 100% waaw non c'est bon mais généralement quoi wax naa ko sànq ethnie mm. j'ai bel et bien dit à quatre-vingt mm. et à quatre-vingt cent man cent pour cent dugguma ci loolu ethnie yëpp est-ce que comprendre nga léegi beneen bi ci tegu mooy Sofia Mm-hmm. est-ce que xam nga am na borom kër yoo xamante ni si bu ñu amee doom ju jigéen am na xaar yu ñuy bind takkal leen ko mm-hmm. wala am na fas yu ni tari fas ko ko mm-hmm. góor ñu jëfandikoo la ñu ñëw toog <laughs> waaw d'accord man soxna Mame Cissé dafa am ñoo xamante ni te bis bu ñu banaliser ndaw ci plateau bi bu subaa scandale bu xew ci réew xam ne ñun ñoo ko porté. non non non non non. jigéen ah. a war ndax loolu mooy li nga xamante ni si moo importance ci seen. dëgg la jëkkër ji nga xamante ni sax na dafa la takk fekk ci yow nga fees dell. kooku fu la wanee dal ci yow. <laughs> xam nga lu tax ah. dama koy leeral xam nga lu tax. parce que dinañ. Hmm. kii ndeem ba mu juddoo ba tollo gi mu am. Hmm. la téye boppam. xanaa de du sàggan mhm. ba xam jëkkër mhm. ñu feetal ko feet bu toll nii mhm. defal ko réception ak mariage bu toll nii mu cay jógee def leneen lu neexul lu neexul lu neexul yàlla lii mooy tax conscient bu bërëb mu xalaat jëkkëram ci conscience bii lay taxawee loolu mooy waral da koy jox confiance à cent pour cent léegi nag leneen la cay xew loolu peut-être mën ngaa dem ba la dugg la nga def ko yow sa coobare la mais sa borom ah, waaw muy sa jikko mais sa borom kër moom dèjà bu la njëkkee jël fekk ci yow ndaw maa la wax lii góor ki gën a fii ci àddina góor la mm-hmm. gis nga góor gi yow takk la fekkul ci yow virginité fekkul ci yow ndaw fu mu toogee dina ne comme moo jaar fii effectivement foo leen andee génn. mais pourquoi non si n'a pas la réponse si n'a pas la réponse à ces questions c'est normal. foo leen andee génn. c'est normal. non c'est pas normal c'est pas normal. c'est c'est am nga sànq bi ngeen di wax. xam nga man mbirum góor amoon thème bi. ah ma génn. waaw génn thème bi dama toog. kon ngeen thème bi dama toog bi ma toogee. dama ñëpp wax parce que xam naa ne man bu ma ñëwee di wax rek danaa wax loo xamante ni sénégalais yi xaw ma nag peut-être loo xamante ni si bëggoo dégg dëgg mais dëgg gi mooy gis nga boo ànd ak sa borom kër foowee sa bopp ngeen ànd dem boîte wala ngeen ànd dem fenn fu la góor ñëw foo jaar crise de jalousie ñëw ci moom mu jàpp ne kii faral xamante non non mais mbaadu kii mbaadu kii kon donc conseil bi may leen di jox conseil bi may jox jigéen ñi conseil bi may jox jigéen ñi mooy waaw jigéen ku ñu ci société sénégalaise te suñu borom moi je suis parfaitement d'accord non non waxuma loolu xam nga man waxuma loolu nee na moom bu lay doxaan sax nga ne ko damaa am ndaw. sànq bu lay sax bu lay waxaan na ko ci dara en direct. teel sa téléphone bi nag. sànq léegi wax na ko en sax nga ne yow amoon nga ne yow da am ndaw. da lay banaliser parce que ku foowee la bëgg. tout à fait tout à fait. mooy dëgg gi. non man foowee la bëgg. man du ma ak yow de xam nga lan la. parce que da lay jàpp foowee la di la def lu ko neex ba bis jot mu ne la fi ñuku. dem takki keneen. léegi nag il y que mu xam ni jàng na alxuraan borom xam-xam la doful dina jàpp mhm. boo xëyee da ngaa vierge Dakar da ko cay fekk la xam moo tax da koy daw. dëgg la léegi day préféré ci yow mi nga xamante ni si amoo ndaw pour mu mën a am. Mhm. espace bu libre ma terrain de zone la. yéen may ma ñaar ñii. am dafa xam ni mais bu fekkee dafa xam ah ni. yow mi nga xamante ni si dafa ñëw dina tas. nga ne ko jànk laa du ma foo. Mhm. bu ko arrangé.